yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax mbokk yi dina wax na tey ñoo ngi fi arène nationale combat bi dox comme Fouta nag taxoon na combat boo xam te bu neex la mbokk yi ci combat ki nga xamante ni mooy laal ak Pokola bi nag mbokk yi mooy spécial Albaka Kayre ak ki nga xamante ni mooy fàtt naa tuba sax ak mbéngu mbokk yi tey ñoom ñaa ñoo bëri spécial <laughs> ni may xoole ñoo bëri spécial bi Fouta dajale leen fii mu nekk signature contrat boo xamante ni ma bàyyi leen ñoom ñaa ñu nuyoo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 Liberté 6 station li ko jëlee Grand Yoff xaar la ba Senzala ba xoolal rond-point Liberté 6 rond-point JVC Saint-Lazare Sacré-Cœur un Sacré-Cœur 2 ba sacré kër 3 maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn ba euh, David Diop maa ngi woo ñëpp waa Kamba waa marché maa ngi woo ñëpp di leen naan nag man seen doom laa dama am combat incha allah le 21 mai incha allah maa ñaan yàlla yàlla may ma ndam ci ki may bëreel waaye nañ ma gestu nañ ma jàppale kii waruma ma ak moom barki alxuraani karim. mbéy mi nuyu naa la. fay naa la ba ma santee yàlla julli si yéen bi sant samay ñaari waajur di gërëm sama papa ak sama yaay di gërëm sama papa ak sama yaay di gërëm sama tante Kiné di woo nuyu sama tante Kiné sama tante Sali di nuyu sama tante Marème dégg temps bi di nuyu koñ bu ma jugee. di nuyu waa tund caaroy bi yëpp maa leen di béggee waa guy ga talimaam jaara samsam 1 samsam 2 samsam 3 waaw di nuyu waa jàmm gën bi yëpp maa leen di béggee waa caaroy pàkk ba pàkk ñambi pàkk naajo pàkk basante waa ginaaw raay maa leen di béggee waa pikin di nuyu tamit ñi ma àndal ku si mel ne Fallou at Bas Pikine ñu bàyyi seen yite yëpp at koto Amet sama chauffeur di béggee ñëpp di nuyu ñëpp waaw ñu gis nga jël albarka albarka yi koo ko xam-xam ne mbër la koo ko xam-xam ne ndaanaan la ba pare nag combat yi gën a metti moo ko bëree ñu gis combat bi nga jógee nga jóge fa jëlaat ko la moo dugal ci albarka kayre waaw dama xam ne sampion la ndax man dama xam ne moom sampion la ndax mbër moom soo bëggee doon champion il faut nga daan champion pour mën a pour mën a bokk ci champion yi moom champion la ndaanaan la dafa mën a bëree wax dëgg neex yàlla lépp moom moo dàq lépp yaay dégg li ma lay wax moom dafa mën lépp laa la wax déggoo lu ma la wax moom champion la soo gisee li tax ma jël ko man samay morom ñi ma war a bëreel ñu bëreel man. mais nag dégg naa nga mën a taamu. man du ma taamu mbër. laajal ñi may tëggal làmb ñëpp ku ñu seeti da ngay bañ waaye kii su may bë su ma demee ba sama làmban moom taxaw rek dama koy dama koy sante yàlla ndax moom champion la jàmbaar la. jàmbaar bi mu doon na nga ma bëgg mu dëggal ko la 21 mai si kàttanu borom bi maay ñaan ndam si kawam. maa ngi ñaan yàlla ndam si kaw albarka le 21 mais yàlla na ma yàlla suturaal si kawam. nee na yaa ëpp lépp mais nga dëggal sa bopp. waaw loolu moom waxu ma loolu waxu daanu saret la ay dëggalal sa bopp loolu dës la. man man ñëpp xam nañ ma kii faalewu ma ko parce que tollu ma fenn xeemu ma ko ci dara nag mais tollu ma fenn munu munu munu maa woon loo xam ne ni gisuma ko ci làmb. yaa ko daa ko bëgg. barki Seydina Mohamed bu dëggalee boppam. yox la jëli la jàpp mu jeex barke alxuraani karim mais nag dafa mel ni ci defet yi nga jóge moo la boole moom parce que bu ñu waxee dëgg rek dafa mel ni yaakaar woon ci làmb ndax bi nga dugg ci làmb ak ñi nga jot a bëreel boobu defe naa duggagul maa ngi ci 15 combats waaw yàlla def na combat bi bëri na mais sant yàlla bu baax a baax mooy fi may delluwaat mooy li ma doon wax sànq rek na ma Liberté 6 dellu eh, na ma Liberté 6 gestu ñu xam ne man lañ am. man doomu Sicap laa. lu la geesu geesu geesu yaa ak moom yéenay jëflante ci digg géew bi nan nga naan jëflante ak moom. waaw kii jëflante ak moom loolu du problème incha allah nee ko poobar sulmoo kaani laay ndékkee acide laay sango jaasi laay bombo lamset laay waxoto dilian laay gàllandikoo man la albarka kayre borom du xaare du baale. bu ko neexee sama freestyle ko lu ndaw ma may ko benn rab bu ndaw te noonu lay demee ayca ñu ànd sama gaay albarka ngi ñëw ah bu ñëwee booy ti nga daw albarka ngi ñëw albarka ngi ñëw ah bu ñëwee ma ni dina daw albarka kayre du xaare du baale albarka kayre du xaare du baale bu dëgg jotee du ma xaare du ma baale bu dëgg jotee du ma xaare du ma baale dama lay teete def la ni bébé fii boo suba bu ñu jàppantee yaay encaissé te sañ naa waat ci yàlla ni incha allahu rabbi le 21 mai albarka Kairé mooy ñibam mbéttee da nga def ndànk may ñibam mbéttee yaa ngi may dégg munoo ma làq bak Seydina Mohamed andaarata xanaa yiyata andaarata booy ndaar uttu gite maa booy xam nga kay dafa njandi man xoolal barki Seydina mu xam ne su ma ñëwee di nga xam lépp dëgg la yow doon dara yow. waaw ngi waaw moom naaj lii la si am wax dëgg neex yàlla moom kii déggoo lu ma la wax Ousse xam la laa sekkal moom. su bis baa lépp nee nga lépp moo ko dàq yaa taxawal moom moo dàq xeex. moo dàq lépp nangul naa ko ndax moom champion la ku bëre 15 combats moom champion la. waaye su bis ba lenn laa sekkal moom muy dama koy daan si kattanu borom bi te maa koy ñaan suñu borom. yal na ma yàlla suturaal si kaw kii kii loolu kese laa amoon moom. ma rabbul kaaba ma ma kaaba kii su ma ko jàppee lamb ji day jeex gëmoo loolu nag ba ki naa barki xam ne ceex mu jeex la dañ maa yónni yaa xamti ma. mais ñaan ñu foo lañ jógee. maa ngi nuyu ñi fi teew yëpp. gannaaw ba ma sant yàlla di julli si yonent bi di ñaanal samay ñaari waajur fu ñu tëdd yal na leen gënal fu ñu jóge di nuyu sama staff yëpp staffu Fouta production yëpp. maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax fu ma leen jëlee fu leen gars yi di jëlee rek boo xam ne làmb ju neex la rek Mbengue Modou di nit ku baax wax dëgg yàlla ku oyof. Hmm. waaw xam nga man moom dama bëgg nit ku rek quoi. Hmm. booy dégganteeg nit rek am ay kàddu yu ngeen jëflante rek dafa rafet. sa waay tamit wax dëgg yàlla ñu ngi soog gisante mais nu ma gisee ku dal la daal. te ku teey la man loolu dam koy soxla si mbër. dal te yaru ñu fasante kóllëre daal man loolu laay gën a soxla daal. waaw bii nga bëgg ko def spécial Pokola ak ki nga xamante ni mooy Boullal. waaw loolu laa bëgg te loolooy am sax incha allah ci laa koy dugal. Ousseyn nga leen wax non li ma leen di ñaax rek nañu góorlu te ay ndaw lañu rek. waaw làmb am na si ñoom yaakaar xam nga làmb moom dafa doy waar. foofu góor la waaye ku daanu rus lu père Massi di wax rek. senegale moom daan rek la xam. Mhm. xamul defet wax dëgg yàlla di leen ñaanal yal na leen yàlla may jàmm rek ba bis ba rek incha allah yow Ousseyn dara ump la ñu ngi doon dox lu combat yu gën a mag yi. Mhm. mais yàlla dafa dogal na sottiwul rek dañuy ànd ak xam nga ngëm yàlla tamit teg lépp si loxo yàlla suñu boroom daal. waaw di nuyu ñu may jàppale ñëpp ku si mel ni Seydou Ly sama benn booy mu ngi marché Sandaga maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di ko sant di nuyu coppi Bam Kaaw Laay Diop boo yëpp maa ngi leen nuyu waa Galoya lañu di nuyu Aboukan borom bergerie Galoya di nuyu Ousmane si bu baax a baax di kenn si man di nuyu Naziru ak alfa ak Wopaam maa ngi siyaar ñëpp di gërëm sama waa koñ waa Grinf bàyyiwuma kenn di leen woo si bis bi daal incha allah di nga gis Ouzin ay làmb yu neex bu soobee yàlla waaw. Albarka lan ngay tàgg. waaw xanaa di woowaat waa Liberté 6 station. di waaw di leen naan combat bi combat bu ma ñor la yàgg naa jooytu nag mais bi yoon bëgg naa gis seen taxawaay ci man sama waa koñ amul xale amul mag amul mère amul pa sant naa leen bu baax gërëm leen maa ngi leen di woo ci bés bi. di ñaan ñëpp ñaanal ma Liberté ba Liberté daj daal rawatina Grand Yoff mbooloo maa ngi woo ñëpp di woo nag Samba mu koy waxaat Samba maa eh, di woo tafaatin bu Kër Ndiaye Lo Tafatine bu Kër Ndiallo maa ngi koy woo bu baax a baax sama le maire Souleymane Camara maa ngi koy woo bu baax a baax sama combat autorité yi nekk Liberté 6 yëpp maa ngi leen di woo sama mbokku Baye Fall yi partout maa ngi woo ñëpp albarka xewle na na doomu pël yëpp ñëw Conakry kee biring xa faa naa biring mbara biring ma combat ma wo wo di nang combat story incha allah le 21 mai wo alama xandim be nga victoire suto gi fari incha allah. mbéy nga man man damay waa Caaroy képp ku nekk biir biir Caaroy at bépp ASC bu ne biir Caaroy Mengu Mboro moo lay woo pour nga ñëw dooleel ko di woo waa jàmm gën bi jàpp guy ga talimaam jaara samsam 1 samsam 2 waa yëmbal di woo waa yëmbal Kër Masaar buun mbedd fas ñëpp maa leen woo waa waa Senzela Grand Yoff maa woo waa Géejawaay amul nit fu muy nekk rek waa Roset tamit maa leen woo Rakaaju Manko Randam bi ma dëkk di woo ñëpp sant yàlla ziade di woo las sama grand làmb ji nii maa la siy woo bu baax a baax a baax ay alu Malick Ndoy waaw di woo ñëpp ay pafay gaa yëpp maa leen di woo di tamit di nuyu tamit ñu nekk si biir kaso bi samay gars yu bëri ñooy si biir kaso bi di leen ñaanal jàmm yal na leen suñu borom dindi si loolu noonu ba andi leen ñu ne biir 100 duma du tudd turu kenn képp ku nekk si biir kaso bi tamit maa lay béggee bu baax a baax waa Cap Manuel waa Camp waa 100 at ñu nekk si biir àll bi sax maa leen di bége waaw di woo képp mbay seen maa lay woo pour nga ñëw jàpp si làmb ji Alpha Bey Pa Moussa Tafa Ndiaye waaw yaa ngi dégg zo maa koy woo seexu naa maa lay woo borom Paris waaw di woo tamit Cheikh Diop borom Angleterre ne la làmb ji nii sa làmb la na si jàmbaar yëpp ñëw jàpp di woo Ibou Socé borom Maroc Ibou Socé nag am na loo xam ne kenn du la ko wax suñ la ko waxee ñetti yoon rek dóor lay mujj doon na ngeen ñëw jàppale ñu te yàlla tax ñun jàppale kese lañ manqué barki Seydina Mohamed ñun lépp si làmb ñun suñ ñëwee làmb sax grand combat lu mu war a àndaale dañ ko koy àndaaleel ñun si làmb ñëpp ngi teg seen bët kon jàppale moo ñu manqué waa caaro yi yëpp tamit képp ku nekk biir marché caaro yi war ñoo mën a jàppale jàppale ñu te yàlla tax ñun jàppale moo ñu manqué waa mbay seen ñun say doom lañ ndax ñun drapeau dëkk bi la ñuy génnee suñu génnee drapeau dëkk moo ñuy topp dañu lay ñaan pour nga ñëw jàppale ñu nekkul force dañ laa ñaan waa ginnaaw raay Pikine ñëpp maa leen di woo waa ginnaaw raay tamit maa leen di woo bu baax a baax di delluwaat waa Grand Yoff laa tuddee làmb ji jël naa lépp teg ko si loxo Assane Père waa Senzala bi ñëpp maa leen di woo waa Géejawaay yëmbal Kër Massar waaw di woo sama staff ku si mel ne Fallou mi taxaw Ibou Laye Mor Big Boy Tafa Kara waaw ay ñoon Abu Balla Fay ay Maadi waaw ay Dias Pam Ñang sama xarit sama lépp maa koy woo tamit moom tamit rakku mëgëy la borom pari maa ngi woo mëgëy borom Paris Cheikh Tidiane ñoom ñëpp nañ ñëw jàppale ma sama mafia bu ndaw bi waa arrêt jaas tamit maa leen di woo lu jàppee jàmm gën a randam bi ma dëkk bépp mafia bu fa nekk maa lay woo ngir yàlla ak yonente bi nañ ñëw jàppale ma làmb ji nii bor la rek dama leen a amal bor war leen ko fay kii nag aw ma lu ma koy wax la laa koy wax su bis baa na ñëw yaru daanu àndoon mbokkam dem ñibbi maa ngi woo tamit waa Fuuta waa Fuuta dama leen di woo waa Galawa billaahi dama leen di woo bu baax a baax ndax ñoom su dee làmb ji dem na ba ba ba mën a Fuuta am relation sax yàlla seen jëmm la barki Seydina am dañ ma doon topp ngir yàlla yonente bi xaaral Fuuta nga bëreel ko chaque jour dañ ma doon topp di woo soxna Faat si bu maam Abdou Aziz di woo sëñ Abib si bu sëñ Mansour ndax sama xarit lañ soxna Faat si man doomam laa sama yaay la waaw di woo sëriñ sëñ Mouhamed Mbacke sëñ Abdou Karim Baye Galas tamit ñoo koy woo bu baax a baax a baax a baax sëñ Seexu naa ñëpp ñoo leen di woo ñun ay mbëru tuur lañ man mbëru tuur laa dangay ngay yaru da ngay yaru yow ña ngay woo ñëpp incha allah rabbi ñaan nañ yàlla ñu wis la mais bés ba da daanu munoo wax ba doo daanu di woo su maa la gën a xasaw ngay teg xam nga yow sànq xam nga yow sànq ba ngay sant ba ngay sant dañ la bàyyi nga sant nga bàyyi noppi moo wax ngay wax man damay wax déggoo loolu xanaa maa ngi woo Waly Waly barki seen naa moom oto laa bëgg Waly Waly jënd ma ak ticket. maa ngi Waly xoolal maa ngi woo Dof Ndeye Dof Ndeye maa lay woo bu baax a baax Zarko combat bi nag sa combat la waaw maa ngi wax ak moom doo xool. dafa mel ni du gis. maa ngi maa ngi maa ngi woo suñu waa dëkk. xay la maa woo képp kuy bëgg nijaay yow demal toogi. di leen jox dig daje. waa Pout maa leen di woo xay lelo gàpp tago Kër Mousse waa Pout yëpp maa leen di woo. di leen jox dig yoon jaa ngeen jëf. Virme no